waaw ndeysaan waa Dakar Action ba tey gis ngeen noonu xale bu jigéen boobu noonu kii sax yaay booy la de fi mu ne nii àndatut ak sagoom de àndatut ak sagoom ñoo ngi koy upp xam naa ne daanu na xam gis nga police ba topp ca noona ndeysaan tey daal boo bëggee dégg dëgg asalem gi xare Badar daal ñaanuñu ko fi waaye xam naa ne sori ko parce que daal xam naa ne police ak population bi ñoo jàkkaarloo tey tey dara yombul

ndeysaan la Karamasala la tàkkati na abu tey abu tey dara du yomb abu tey police yi sonn nañ abu dawal daw leen waa Dakar Instant tey tey tey dëkk bi metti na de dëkk bi problème am na dëgg dëgg dëgg

ba tey noonu la demee kooku sapeur pompier la tey nee naa la coow li bari na am na ku daanu fii kaay jël ko kaay jël ko nee naa la lacrymogène bu jibee ñu yore asma ñëpp dañuy daanu ñi dañuy xëm ñeneen ñi leneen ak leneen tey nee naa la marché asalem daal boo ñëwee guerre bi metti na coow li bari na diggante population bi. dans le huitième jour du décès de la femme de Madjo le premier secrétaire général de la synthèse au Sénégal. Dans l'intérieur de la maison, il n'y a que des dames, des vieilles dames, des enfants, des innocents. Je ne peux pas vous dire actuellement Combien de gosses, combien de personnes on a, ah, je ne sais pas, on a convoyé vers les hôpitaux Combien Ils ont balancé à l'intérieur de la maison plus de 5 lacrymogènes. Devrez-vous constater ce qui se passe Aujourd'hui, on est en décès. On a mal au cœur. On est en train de pleurer notre maman. La police n'a rien à faire que de balancer à plus de 5 lacrymogènes dans la maison. Il n'y a rien de plus honteux que pour la police sénégalaise. Rien de plus honteux. Eh, on était prêts à se débattre avec eux. Parce qu'on ne peut pas perdre notre très cher maman. Je rappelle, la première femme de Madia Diop, le premier secrétaire général de la synthèse. Et la police a foutu plus de 5 lacrymogènes dans la maison. Je vais, non, ne vous en faites pas. Toute la presse sera, sera, sera avertie par rapport à ça. Ils n'ont qu'à faire le travail. Mais avant d'agir, je pense qu'il y a lieu de, vérifier. Il y a lieu de vérifier. J'ai parlé avec la, madame la commissaire et les policiers. Je ne sais pas, c'est une dame. Il y a un autre que j'ai parlé, je ne sais pas c'est quel genre de commissaire. Mais si ça persiste, moi je ne peux pas comprendre. Un d'eux a persisté et signé comme quoi que il a même balancé une lacrymogène à la fenêtre même, là où se trouvaient les dames. Mais qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela signifie On peut comprendre. Ils font le travail, mais ils n'ont qu'à le faire consciemment. Consciemment. C'est de l'inconscience pure et simple ce qu'ils font. Nous sommes plus citoyens que. Nous sommes plus comme eux. Pour tout le temps, sama tànt Akal voilà voilà. xool leen Fary Diop doomu Ndeye Koura Tall ak Madja Diop police bi mooy lan police tey bu mun bu munul bu munul aar nit ñi dinañ ñëw fekk ñu nga xamante ne defuñu dara mu ñëw di xeex ak ñoom ñun duñu seen ennemi marché bi mooy seen ennemi. xale yu góor yi ci marché bi jaaykat yi ñoo leen noqo ñu bëgg a dee ñu daw après ñu tourné vers ñun dëkk ba amatul loi mbokku àdduna ji asalaamaaleykum yéen mbokki Sénégal man la Moustapha Faye euh, Moustapha masahi leen mbokk ci masamila yi euh, xeer di dox ti ñaxtu waaw ñun nag ñu ngi yëgal le président Macky Sall waaw ñun masamila yi son nañ waruñu jàpp heure bi ñu jàpp ñu jaay ay place juróom son nañ jaaxle nañ waa nañu wàllu ci masambilan yi waa instant yi boo place cinq ñu bëgg koo dagg dagg fukki juróom fukki nit ñeenti koo bokk loolu am mënuñu ko te duñ ko def waaw son sonn dañoo tey loolu dafa métti ci ñun waaw te ñu ngi interpellé bàyyi ñu kenn le ministre du commerce le président Macky waaw waaw ñu ngi nii masambilan yi bokk suñu droit Sénégal te euh, ñu ngi nii euh, euh, force covid 19 mille milliards yi ñu wax ni ñu ngi nii amuñ ci un franc a am te ñu ngi interpellé di woo ñëpp nag di leen woo réunion bu mag am na fii lundi incha rabbi lundi à de 9 heures amna nañ réunion massa ambulant ne ñoo fi tase tous les amla du Sénégal sont convoqués journalistes yi maa leen jaajëf bu baax ndax yéen it ay borom baax ngeen fu ñu gis suñu côté ngeen Malik, amna na ñun japp de am na ñun japp malik ñanga nona ci biir auto ba de ci marchand ambulant lañ bokku de malik ñee ñu jàpp. Malik demal lu ñuy jooytu foofu Malik. ma ko demal lu xew fofu ci kër goga ñi dëkk ci kër yi de ñoom na sang sàng lok police yi nee bu ngeen dee xex ak marchand ambulant ngeen xex ak ñoom té bañ ñoo sanni ay ah dugg nañ ca biir kër ga dem Malick Malick lu xew foofa ca biir topp ko sapeur pompier la wala Malick ñaxtul loolu ba xam lu xew Malick Malick tey coono dugg na de coono dugg na sapeur nga oto baa ngi noonu oto bi moom bari na ñu dugal ci biir kenn nga noona waaye nee naa la fii HLM daal tey dara du yomb. Malick jëlal jàpp nañ ponkal de Malick. Reser ba japp malik takal di yobu malik jeul loolu malik malik demal ñewal malik ñewal neena la ñom kenn mënu leena a fo man di nek dina la luqali ba japp la kenn du ñom malik jeul loolu waxul tuti neena la duggu ci bir lan doon set bu neexee rek nexna duggal nañ ko ci bir malik malik kooku tamadu ko ëppi bu may ko mu ñew Malik, koku ñu koku ñu dugal ci biir tamo du ko uppi boom set nan ko ba japp dugal ci biir malik neena api la tamo du ko uppi Malik ma nga ca biir ma nga ca biir malik tuti rek da nga jël séquence yi